bés la bu ñu jagleel këru liggéeyukaay yi employé yi fii ci biir réew bu senegal tax nag acteurs yi experts yi maanaam ñi seen xam-xam màcc jëm ci wili mel waaye tamit ñi nga xamante ne ay conseillers lañu ñépp toog ngir waxtaanee li ni mel lépp ñu teg ko ci mën-mën ak xarañte doomu Sénégal. senegal dafa mës a am gëdd ci biir àdduna bi te li ko indi xam-xam la woon. xam-xam boobu nag mi moo fi ne ba tey te loolu am na ci ci réew mi boobu doy sëkk loolu nag lañu ñu bëggoon que nit ñëpp ñu daje tënk ci ay ay ay xam-xam fexe ba li ñuy xalaat di ko jëmale ci ñun mu jóge ci ñun dellu seeti ci ñun fexe nag ba ñu wàññi Eh, jëggaani bi ñuy jëggee xam-xam ci bitim réew te mu am ci réew mi ba ta ba des. bilip ndaje ab prox ndal la ngir 3FPT daal di amal ab convention bu yees ak FENEX di kuréel bi nga xamante ni moom mooy boole expert ak conseil yi nekk ci biir réew bu senegal di ab xaatim boo xam ne njëriñ yi muy am bari na tàmbale ko ci xool lan mooy bëgg-bëgg këru liggéeyukaay yi laata ñu ci tàggat ndaw yi. dañ ciy xool rek nan la ñu mën a def ba mën a tàggat ñi composé confédération boobu noonu ci wàllum rek seet ñi nga xam ne ñoo bokk secteur bi ñuy liggéeyee ñu mën leen tàggatandoo mu nekk ay formation inter entreprise mais mutualisée mais ñu mën a xool tamit ci wàllum tàggat boobu loolu yan so sunu économie lan la soxla ci ay ndaw bu ko defee ñun ñu mën a anticiper ci formation ci ndaw yooyu mais ñoom tamit entreprise fi nekk yàlla lañu soxla comme ay compétence bu ko defee ndaw yooyu ñu former la ñoom ñu mën leen jël éventuellement léelée léeg nag mu tombé ci compétence boo xam ne ne jotul sax am léegi 3FPT am na kuréel boo xam ne mën na leen gunge pour fekkee ne ñoo war a bindaat programme bu bees ñu mën koo def. dooleel économie bu Sénégal jaarale ko ci tàggat ndaw yi lépp nag ngir lenn jàngat xool ëllëg métier d'expert ak consultance fii ci biir réew mi duñu yóbbu ci thème bi ñu tànn ngir waxtaane ko ci bile ndaje